mais xam nga comme ni ma koy waxee rek euh, xam nga man aw ma sax temps booy wax naan damay damay jalouser qui que ce soit aw ma temps tamit pour wax ni damay xool sama gannaaw wala damay xool sama kanam nee naa li ma waroon def ci football def naa ko ba mu mat amatuma lu may regretter lenn daal xam naa ko. jàppale boy bi ak jàppale sénégalais buy ñëw suba pour mu nekk le meilleur joueur du monde lolu moma ma tax ndax tay jii bu jalousie amone jalousie amone tay am équipe nationale yu bari yu may wo si Afrique voire même euh, ci monde bi mais mënoon n'a dem liggéey ñom mais Sénégal moma ma tax a Sénégal moma ma tax a jóg te koo xam ne tey la defaral Seigne Touba amo amo amo taxaw taxaw na da ngay jalouser kenn lenn dal xam nga lan la. Sénégal bu nu bëggee gagné wax yu sew yi nañ ko jël teg fële nañu jël ay waxu yoo xam ni amul bopp amul genn teg ko fenn comme ni ma wax rek ndagam Macky Sall ab Ablaye Wade tey jii ñoo dem ba te les deux présidents yi nga xam ne tey jii kenn mënu waxul Sénégal te mënu leen wax ñaari président yooyu nga xam ni leur muy président Macky Sall ak Ablaye Wade ñoo jàppante loxo tey Sénégal ñëpp dañu war a jàppante loxo ndax am na nañu ballon door li gënoon jafe li gën a ci si football mooy am ballon d'or du gagné coupe d'Afrique am nañ si ñett tey jii daan ci am ñett léegi lan moo gën lan moo ñu topp suñu mayo tey jii ñu gis si benn étoile te étoile boobu pour mu am il faut que ñu bokk ndey bokk bàyyi